ñoo ngi jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu sëriñ suñu xalif général muy sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal yàlla yokk ay fanam yu bëree bëri bëri bëri ànd ak wér gu yaram bu doy may ko tal ak fekke waaye di ko gërëm ci taxawaayam ci réew mi ndax yéen ñëpp xam ngeen ni at ak genn wàll ci gannaaw mu mënoon na am Sénégal bu dul woon taxawaayam kon tey jii beneen wax la ñuy wax ci Sénégal di jaarale suñu nuyoo ci moom yeggale ko mbooleem seen njabootu Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul di leen nuyu di leen ziar di leen boole ci ñaan yi ñaanal kilifa gu mag gi di am mbégte nag gannaaw loolu nuyu it xalif général Baye ak ñëpp ñi nga xam ne moo leen njaboote ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar. di am mbégte teew tey fii ci dëkk bu sell bii dëkk bu tedd bii di Touba Mbacké li may njëkke sama mooy saa suñu nee dañuy ñëw Touba Mbacké dina bëri ñoo xam ne dañuy def ay pexe pour saboter visite ñu bëgg a leeral dara ndaw ci fii dëkk bii kenn gënu ñoo xam lan mooy orma dëkk bi kenn gënuñu koo xam te kenn gënuñu koo respecté it moo tax jamono la ci gannaaw bi ñeneen dañuy tëgg casserole yi man mii maa woo sëñ Cheikh Thioro ne ko ku dëkk Touba rek te ànd te bëgg tëgg na otoom wala mu jël otoom dem ba Mbacké def ko fa doog a dellu si Touba waaye bu ko noonu it tey jii ba ñuy ñëw dañ leen wax ni fu ñu mënti jaar rek zone 28 ak lépp lu jege grande mosquée bi bu fa kenn dem di def caravane wala di politique bu ñu paree dañuy def ci politique nag dañ doxoon ci ba foofu. daa def suñuy ziyaara en tant que talibé daal di dem ñibbi kon ñii di politique loolu di ko def ay pexe nañu noppalu ndax gënuñ ñoo xam dëkk bi gënuñu fee bokk te gënuñu ko ormal nag ndax ñoom bis bu ne ñu xotti orma dëkk bi ngeen gis ko bis bu ne ñu def ko ñun ba ñëwee permanence dañoo génn dëkk bi dem ba Mbàkke def fa permanence est-ce que ñoom amuñu fii permanence bis bu ne ñu def dañ koy def kon ñu nag ñoom bokkuñu bu loolu yeesoo nag fii ci dëkk bu tedd bii suñ fiy wax il faut ñu waxaat yéen tuuti ci li nga xam ne moo war a doon suñu modèle fii Sénégal ndax nag Sénégal dañoo xëy rek ñu ne ñu am ngeen indépendance ñu ne indépendance ñu ne waaw tànnal lañ leen ay kilifa ñooy jiite réew mi tànnal lañ leen constitution tànnal leen ay institution waaye loolu mosul doon loo xam ne dañoo toog waxtaane ko ci réew mi ba xam ndax lii lañu bëgg ci suñu constitution lii lañu bëgg ci suñuy institution est-ce que bi ak ñun suñuy gëm-gëm suñuy aada suñuy diine du am débat moo tax laïcité bi ñuy wax ñu gëmul ñu gëm religion maam ya am ñoo xam ne sax nee nañ gëmuñu dara waaye ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ku ne am nga fi droit ñoom ñëpp ñoo bokk état bi bu fay impôt jotee ñëpp koy fay kon ñoom ñëpp am nañ fi àq bu dee loolu mooy laïcité état bi yemale ñëpp tollale ñëpp ñun d'accord nañ ci waaye bu dee laïcité mooy li ñu tubaab yi di bëgg a jàngal xam nga ni soo demee France tey ab góor jullit amul droit yor fa ñaari soxna nee nañu loolu c'est criminel polygamie ñoom nee nañu criminel la est-ce que ñun suñu laïcité loolu la tey boo demee France boo demee ci réewu tubaab yi nee nañ góor ak góor mën nañu sëy jigéen ak jigéen mën nañu sëy est-ce que loolu mooy suñu laïcité boo demee ci réewu tubaab yi boo demee ci réewu yi dañ la naan sëriñ si wala ñu ngànk diine bi ñoom amuñu droit wax seen gis-gis ci réew mi dañoo war a dem toog rek ñoom ci église ak ci jàkka ya bàyyi ñeneen yor réew mi di ko doxalee nu mu leen neexee est mooy suñu laïcité moo tax ñu ne mbokk yi dafa jot ñu defar suñu modèle topp rek di roy di roy di roy ba tey ñu ñu bëgg a imposer loo xam ne xel xalaatu ko. mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen ñi bëgguñu ko imposer suñu réew ma ne diine boo dem diine boo dem muy diine nasaraan di diine julit ak diine gu mun doon ba ci ñi nga xam ne maam ñi lañu gëm alxuraan de li mu wax alxuraan di nga ko seet ba mu jeex zakar wa unsa la wax amul dégg bi góor ngay nekk wala nga ne jigéen kan moo ñu mën a génneel kenn moom mën a génneel ci alquran bu ñu waxee leneen lu wute ak góor wala jigéen digg bi amul gannaaw gi amul kanam gi amul da ngay nekk góor mbaa nga ne jigéen te loolu nag loolu nag li sax yàlla defee ko loolu loolu mooy fondement société pour société di dox pour société di wéy il faut góor am jigéen am njaboot mun cee am bis buñ ko bàyyee àdduna foofu lay jeexee moo tax loolu mu koo nangu de est-ce que nangu ngeen ci est nangu Sénégal ñun xam na mbir boo koy def da nga koy ñeme wala nga bakoo bëri na ñu nekk ci réew mi di ci politique ña ci ñeme taxaw jàkkaarloog yéen ne leen man su ngeen ma wóoloo jiital ma assemblée nationale dinaa voté loi boo xam ne loolu dañ koy araamal fii ci Sénégal. ñoom ñëpp ñu ngi laam laabe laam laabe xam ngeen Macky Sall Macky Sall ko waxee ci mbir mi dafa ne loi bi nga xam ne moo fi nekk nga xam ne loi vers 1960 ba léegi loi boobu acte contre nature la wax nee na loi boobu doy na. loi boobu doy na ñun nee nañu loi boobu réglé wul ngóor jigéen. parce que àdduna bi dafa toll foo xam ne tubaab bi dañu am seen benn programme mooy fépp ci àdduna dañu fexe ba imposer ko kon moom jamono yële bi mu jaaxlee dafa dem jëli benn loi nee na contre terrorisme Abdou Sylla mii ci yooyu lañ ko jàppee ak keneen ak keneen waaye loi terrorisme xam nga lan mooy teslaay bi mooy képp ko ne d'accord ak Macky Sall ñu jàpp la ne la terroriste nga loolu mooy loi bi. noonu mu defee nag beneen génne benn loi contre le terrorisme noonu la waree am fit daa def une loi bu ne Sénégal araamal nañ ci ngóor jigéen fii nekk laa koy waxee waxaat ko fi ñun bu ngeen ñu wóoloo jox ñu majorité néew ñu ne de ñu ne de dama ne ñun néew ñu dañuy dem ci kër jàmbur yi di lu ñëtu di xool nit lu ñuy def lool suñu yoon néew ci la vie privée est sacrée waaye nag niñ ko bëgg a defee ba suñu sàgganee suñuy film ak suñuy théâtre sax nañ ko fa dugal ak di def ay cérémonie gis ngeen réew yi day am benn benn bés boo xam ne képp koy góor jigéen am nga sañ-sañu génn def défilé est-ce que loolu mën nañ ko xalaat Sénégal loolu la ñu bëgg a jëlee ci réew kon ñun dañu ne su ngeen ñu yóbbu assemblée affaire Macky Sall yooyu ñu laam-laame naan li fi nekk baax na bëgg lu neex tubaab yi ñun dañuy wax lu leer nañu voté loi boo xam ne daw leeral na définitivement ñaareel bi mbokk yi dama ne man dama naw bawol bawol xam ngeen ndax lan bawol bawol dafa am fulla am fit am dignité xam lan mooy mu boppam xam nga ñoom dañoo dañoo ndax li ñu xëpp ci alal bi temps yi ci réew mi ci fii Touba Mbacké ci alal te xam ngeen alal bi fu mu jóge de alal bu ñu sàcc la ci keesu état bi lañ xëpp ci alal xëpp ñu ko fenn soo dajale woon Sénégal yëpp li ñu xëpp Touba matul loolu li ñu xëpp Sénégal yëpp boo ko xayma woon li ñu def Touba gi moo ko ëpp waaye dañoo xamul kuy bawal bool ma ne bool bool bëgg na xaalis loolu de waaye xaalis bu mu ñàkk xaalis bu mu liggéey xaalis bu ko lew ak pare su ko amee pare dugal ko fu lew mooy delloo ko ci yoon yi moom ñuy tabaxee université yi moom ñuy tabaxee jàkka yi moom la ñuy dëkk bi loolu mooy bool bool bool kenn du ko jënd moo tax Antoine Diome ak Samuel Sarr ak ñi ma yebal yëpp ñu yor seen i kat di joxe yor seeni i 50 millions di joxe dañoo xamul lu xew le 31 lañ koy xam dinañ leen labbali fii ci Bawol ba ñu xam am kon kon tax Bawol Bawol gëm boppam dafa am lu ñu jàng lu rëy ku tedd ki jàngal ñu ko muy Cheikh Ahmadou Bamba daf ñoo jàngal xam sa bopp mën a muñ ñeme liggéey lan moo symboliser Bawol jaamu yàlla ak liggéey yeesul wàll jaamu yàlla ak liggéey dama ne modèle boobu buñ ko appliqué woon Sénégal développé nañ bu yàgg naka nga mu ne tabax Masaalikul Jinaan def ci ay milliards ay milliards nga def ko ci Masaalikul Jinaan surfacturation amul détournement amul jàkka ji rafet mat sëkk tey projet boo dégg ci état bi lañ surfacturé pare lekk xaalis bi kon modèle bii buñ ko appliqué woon Sénégal développé na bu yàgg moo tax ñu ne leen fi ngeen ko jàpp foofu la ndax nag dañu am occasion boo xam ne dootuñu ko am defe naa gis ngeen Sénégal suñu mag ñi Cheikh Amadou Bamba El Hadj Malick Sy keneen ak keneen lañu ñu ñaanoon la ñaanoon ñoom moo feeñ ci suñu jamono ñun ñii ndax ñëpp xamoon nañu li ñu ñaan yàlla na ko nangu ñu toog di xaar ban génération lay tombeel mu ñëw tombe suñu génération ñu ne Sénégal am na or am na pétrole am na gaz am na zircon am na géej am na suuf ba pare ñu ne dañoo sous-développé ñu ne am na ñu loolu yëpp Macky Sall dem moom ak rakkam si ngeen ko tubaab jox ko tubaab ñu ñu nar a toog xoole moo tax nag ñu ne ñu ne leen moo tax ñu ne leen yéen waa Touba Mbacké est-ce ngeen ñu wóolu ngeen dama leen di giiñal ni bu ngeen ñu joxee majorité assemblée 2024 ñu faxas ko dañ leen di giiñal ni alalu réew mi dina dellu si ci réew mi alalu réew mi dina dellu ci réew mi te waa réew mi dinañ ko gis ba doyal gis ngeen Qatar li mu am Qatar dégg ngeen Qatar mooy organiser coupe du monde ren am réew mu ndaw la 35 ans ci gannaaw naaree ci ay tente lañ doon fanaan ci désert bi tey soo fa demee ay gratte-ciel nga fay fekk am nga leen may loolu gaz dañu am gaz am seen fulla rek xam nga naar lu mu mel lu mu mënti rek fulla am na ko am seen fulla ba téye seen gaas amul toq bu ñu bàyyi tubaab yi jël ko ci la defaree seen réew ba ren ñooy organiser coupe du monde stade bi ñu koy footballé sax dañ ko climatisé ma yëgal leen ni Qatar Sénégal moo ko ëpp gaz fuuf gaz baa ngi fii Saint-Louis waaye Macky Sall ak Aliou Sall jaay nañ ko Franck Timis ñu ne leen bu ngeen ñu a ci réew mi jiital naa leen ci yàlla de gaz boobu na dellu si Sénégal parce que gaz boobu suñuy ñaanu maam yu nangu la buñ ko seetaan mu dem moo tax ñu ne leen lii occasion la boo xam ne bu ñu seetaanee ba mu romb Macky Sall di xoqatal nit ñi di dóoraate di tëjaate di sosal nit ñi subaat ngoon moom ay pressam suñu seetaanee ba mu romb dinañu toog di jooy bëccëg mbir kam te duñu gis ku ñuy faral suñu rongoñ moo tax ñoom lu mu leen mu jaral rek daf ñu ko war a jaral ñu ne nag bu ngeen ñu joxee majorité assemblée barki dem ba léegi ñu ngi leen lancer un défi dañu bëgg ñoom ñu ñëw ñu toog ñu def débat public waa Touba Mbacké est-ce que dund bi yomb na fii Touba est-ce que dund bi yomb na ñun dañ leen wax ni waxaguma leen 2024 de waaye 2022 bii bu ngeen ñu joxee majorité assemblée nationale ñu wàññi dund bi te duñu waxantu ndax xam nga ko xam nga tax ñun li ñuy wax ñu boole ko su dee ñun dañ leen wax ñu dinañ te defuñu ko yéen yi ñuy carte 2024 am ngeen soreetul suñ leen nee dinañu wàññi dund gi à partir de l' assemblée nationale ceeb bi diwlin bi suukar bi gaz bi ak yeneen ak yeneen suñ leen yëpp ko wàññi dinañ ko wàññi. moo tax ñu ne leen ñoom nañu ñëw ñu toog def débat public wax ci loolu waaye ko nangu moo tax ñu ne leen beneen enjeu bi nga xam ne mooy enjeu élection bi. mooy est-ce que fii ndax nag man waa Touba damaa kontaan ci yéen wallaahi damaa kontaan ci yéen est xam ngeen ni est xam ngeen ni Touba moom rek mooy bërëb boo xam ne 2012 ba léegi Macky Sall mosu koo gagné est-ce que xam ngeen loolu 2012 ba léegi mosu koo liggéey nag. liggéey nag balaa muy neex ñu yeggali ko 2022 Macky Sall war a gagné Touba 2024 dañ leen war a faxas moo tax ma ne leen pour am il faut ngeen voté mais il faut ngeen xam ne ngeen i voté bu njëkk bi mooy bëri na ay liste yoo xam ne ñu ngi woote opposition du ñu opposition de ndax ñoom dañuy créer ay liste parallèle Macky Sall ay nit. jox leen parrainage jox leen xaalis ne leen dem leen ne opposition ngeen pour mën a wàññi dooli opposition benn opposition moo fi am mooy intercoalition wàllu Yewwi yéen xam ko benn opposition moo fi am nu ngeen di voté nag naka ngeen di voté dégg naa am na ñoo xam ne ñu ngi wootew ci Yewwi ñeneen ci Yewwi la ñu bokk wala ci Pastef naan leen jël leen bulletin Yewwi ku jël bulletin yeewi yàq nga vote fii benn bulletin moo fi am ku ko voté voté nga ma man mii Ousmane Sonko ku ko voté voté nga maître Ablaye Wade bulletin bi mooy bii nataalu maître Ablaye Wade moo ci nekk bii mooy sama bulletin man mooy bulletin Déthié Fall mooy bulletin bulletin Khalifa mooy bulletin Aïda Mbodj mooy mooy bulletin mooy bulletin kii mooy suñu bulletin amul beneen kon bu ngeen duggee keroog ci urne bi ngir yàlla bu leen laal bulletin Yewwi bi bu leen ko laal lu ngeen bëgg bëgg Ousmane Sonko bu ngeen ko voté fii ñàkk nañu bulletin boobu benn bulletin la tête de liste baa ngi nii di sëñ Abdou sama frère ànd ci ñoom sëñ Cheikh Thioro ak ñeneen ak ñeneen kii mooy suñu bulletin député Yewwi mu ngi ci député Wallu mu ngi ci kon ndax mbokki Touba mbokki Touba est-ce que pare ngeen pour le 31 est-ce que pare ngeen pour le 31 may dalal xelu nit ñi nag may dalal xelu nit ñi ñun ku ñu mus a àndal ci politique bu ñu demee ba àndatuñu dinañ la ormal du ñu génn di wax lu ñaaw ci yow ndax na mu tuuti tuuti su dee benn fan sax am na loo liggéey ci suñu liggéey gi. waaye ku yaakaar ni toog nga ba élection jot nga génn ne jóge naa ci Yewwi foog ni loolu dina tere ñu gañe fii Touba ndax nga sa kon nag liggéey bi dañ koy door rek xam ngeen ni 2024 lay jeex 2024 ñu jeexal ci Macky Sall bëgg ngeen cohabitation am assemblée nationale bëgg ngeen coow troisième jeex ci Sénégal a ah solution bi de mi ngi nii mu ngi le 31 juillet ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm kilifa diine yi fi nekk yëpp di gërëm ci seen teeru teertu bu béy bii di leen masawu ci xaar bi ak ci naaj bi comme dañoo war a ba Sadio dellu si dugg Mbàkke ñu ngi ni di gërëm bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah